jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dale nag ak jàmm ci jotaayu xibaar yi ñu jégalu bu baax baax ci door gi xibaar yi daañu ko tàmbaleeg li nga xam ne nag moom mooy bés wi nga xam ne nag moom lañ yàlla di jagleel garab yi jàppale dine Serigne Cheikh Bintou Fall ibnu Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar mi ngi rafetlu bu baax a baax lu ni mel te itam nga xam ne nag moom la ñu amal ca dëkk dëkku selwa di tubaa Mbacké di ngeen teewlu ay kàddoom ci li nga xam ne moom moo di bile jotaayu xibaar daañu waxtaane ci mujj euh, génn nga xam ne nag moom Ousmane Sonko daal dina koy euh, génn ginnaaw itam euh, bi ñu doon amal concours général bi waxtaanee woon li nga xam ne nag euh, moom moo di yenn ci ay soxna yuy muuru jëm ci wàllu l'école bi tax na itam coow li nga xam ne moom moo ci judd judd si tax ki nga xam ne moom moo di Moustapha Maba Guirassy daal dinay tontul Ousmane Sonko jëmale ci ki nga xam ne moom moo di Abbé André Latir Ndiaye jëm ci wàllu woowee ca diwaan bu cees la yëkkatee yooyu les kaddu daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo daañu dem itam fa nga xam ne nag moom moo ca bawal ñi ngi ñu dénk wàllu cet gi ñoom ñoo nangoo yenn ci ay ndawal yoo xamante ni ah, baaxul askan wa bu jëfandikoo ko tax na itam ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jëf jëf ju ñaaw joojee teg nañu leen loxo ci wàllu wu ni mel daañu waxtaanee ah, tàggat yaram Cheikh Tidiane Diouf nekk juróomeelu ah, ci li nga xam ne nag moom moo di série am ci li nga xam ne moom moo di 400 mètres ci la jamono itam wàllu repêchage itam ñeel kooke ngir xel dem ci li nga xam ne nag moom moo di demi-finale yi mardi yi nga xam ne nag moom jëm ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, mille JOJ 2024 Louis François euh, Mendy moom itam xam ngeen ne daal nay dakkal kursam nekk itam ci kanam jëm ci li nga xam ne nag moom moo di série am ci yël jamono ñuy wax ci moom li nga xam ne nag moom moo di qualifié ci demi-finale bi ci li nga xam ne moom moo di 110 mètres et wu JO Paris 2024 mbokk yi tënk yaa ngoog bu ngeen taaxee loo tuuti ma dikk ñu faram fàccee journée de l'arbre wala boog bés bi nga xam ne nag moom lañu euh, jagleel garab yi wala boog njëbbat li ca diwaan euh, bu selwa di Touba Mbacke foofe itam xam ngeen ne amal nañu fa lancement bi moom Serigne Cheikh euh, Bintou Fall ibnu sëriñ Modou Abdoulaye Fall Ndar mi ngi rafet lu bu baax a baax lu ni mel tànnanteef bi nga xam ne nag moom lañu amal ca Touba itam naka noonu ñu digtal leen ay kàddoom ci micro Pape Balla Gaye soo ko jëmbatee rek pollution bi dina dina dina dina dina wàññeeku bu baax a baax a baax dañ na dëkk yu mag yoo xam te soo fa demee dañuy def journée <coughs> journée boo xam ne journée sans sans pollution nga xam ne ñu ñëpp day gaare seen i oto oto dañ koy gaare ñu yor ay vélo yor ko eh, mag yi tey si yoo xam ne seen biir capital yi sax oto ya fay daw dootuñu lakk gasoil wala essence wala kii eh, oto électrique la ngir rek jëm a aar aar pollution ñaare bi dafa baax ci taw ndax day wàcce ndox ba pare garab yi. doomu aadama dina feebar feebar boo xam ne su dem hôpital duñu xam lan moo ko dal waaye su mën ne dem ci jardin di fa toog dafa yendu rek day dem ba jékki-jékki feebar boobu jékki-jékki dañ ci moom ndax garab ni xob bi amee njariñ yeneen bi amee ko njëriñ euh, noonu it la nooy nooy li bàyyi ko ci mu amee njariñ buñ doon wax naan slogan sax mën nañ ko waxee noonu benn murid bu nekk benn benn benn benn euh, kenn kenn ku nekk ku nekk ku nekk ci Touba kenn ku nekk ci ku ne ku yeewoo Touba ku ne nga jaayante jëmbatal sa bopp genn garab goo xam ne da nga koy def addi Sëriñ Tuubaa nga xam ne garab googu yaa ko jëmbatal sa bopp di ko toppal sa bopp parce que yéen def ko def ko sa liggéey ci Sëriñ Tuubaa nga xam ne kenn ku nekk da nga ko jaayante ni ñu ko amalee ca dëkk bu di Touba Mbacké noonu la ñu ko amalee ca diwaan bu Kër Massar foofee jàppale nag jëriñ ji ñu dénk wàllu forces armées moom général biram jóob mi ngi sàkku itam ci askan wi ñu gën a farlu ci li nga xam ne nag moom di jëmbatub garab ñu teewlu ay kàddoom ci micro Aminata Ba ak Ousmane Baldé. góorlu di liggéey ak yéen yéen ñëpp jiital ci nag association xale yu jigéen yi ak association. Euh, jeunes pour que Sénégal doon réew moo xam ni li ñuy wax Sénégal vert lay doon ndax foo mënti dem di fa gis ay garab bu neexee yàlla. ci journée bi nga xam ni moom lañu ñu jagaleel li ñuy wax garab te thème bi nga xam ni moom lañ choisir mooy rôle bi nga xam ni moom la reboisement di jouer ci. souveraineté alimentaire ak aussi développement socio-économique ma ni woon sànq mënuñoo am thème bu gën bii suñu xamee rôle bi nga xam ni moom la garab di jouer ci préservation environnement en général mais aussi sur la lutte bi ñuy def contre l'avancée du désert bi nga xam ni bis bu ne muy gën a jege si suñu gox yi mais tamit ci lutte bi nga xam ni moom la ñuy def contre l'insécurité alimentaire wante yooyu yëpp am na solo mais nag ñun ñii Afrique surtout Sénégal yéen ñëpp xam ngeen rôle bi nga xam ni moom la garab yàgg joué ci suñu société yi yéen ñëpp yàgg ngeen dégg li ñuy wax arbu à palabre loole itam bokk na ci li muy def dina gën a naatal li nga xam ne nag moom moo di alam gi loole bokk na ci kàddu yi nga xam ne nag moom lañu yëkkatee ci bët gànnaar bu réew bu Sénégal ni ki noonu itam ñu ci ñaax askan wi ñi nga xam ne itam ay acteur lañu ci saa su ne nee nañu nag dinañ gën a jàjju bu ko defee itam xel mën a dem ci loolee Ousseynou Diop Habib Seck reportage ñu seetaan ci doon na région boo xamante ni changement climatique bi da ko daal di menacé loolee nag tax na kilifa yi nga xamante ñu nekk ci région bu Saint-Louis rawatina ci ville bu Saint-Louis ñoom daal di jóg takku ngir ci journée reboisement bile ñu daal di indi saafara ci mbir mu nu mel ci Langue de Barbarie nag lañ ko tàmbalee. et que aujourd'hui bu ñu reboiser booru dex gi même au-delà am nañu ay prospection pour même xool nu ñuy def ay arbres au niveau de la berge maritime yooyu yëpp ay activités yi nga xam ni day améliorer le cadre de vie des populations. ou peut-être euh, euh, l'original. bi nga xamante ni soxla nañ ko ndaxte li nga xamante ni président initié na ko dina gën tax tey lu jëm ci wàllu changement climatique bi ñu daat koy mën a gën xeex rawatina nag ci diwaan Ndar rawatina itam ci Langue de on cunicule presque chaque année 9 millions d'hectares. ci zone nord bi changement climatique bi di wéy bu baax a baax désert bi itam naka noonu fi ñu doon lancé lu jëm ci wàllu journée bi la sax ñi nga xamante ñooy kilifa yi nee nañu daañu def seen kéemtalaay kattan. garab fii suñu daan fàttaliku tuuti si ay jamono dañ daan bay noor bay nawet sama kër gi fii ma dëkk dañ fa daan sama maam ñoom ak ñun dañ fa daan bay gerte léegi nag soo seetloo mënatuñu gay bay gerte ndax lool yëpp nag lu ko indil mooy changement impact changement climatique donc ñun dañ ko war a am objectif changé mbir moom nañ koy defee nag mooy suñu jëmbatee ay garab di ko topp tey def wala na ko xool nu ñuy entretenir garab yi xool nu ñuy entretenir alam bi ba réew mi gën a naat a gën ci ëpp euh, en tout cas euh, résultat yoo xam favorable. département bu seel louis érosion côtière bi def fi ay jéego li nga xamante nag mooy reboisement bi ñu tàmbali ci diwaan Ndar Géej mën na am ay njeexintal ci ñiiri askan bi. ñu waxtaanee ba tey lu soxal garab yi département bu Bounkiling foofee itam xam ngeen ne daggum garab mi sonal na leen lool tax na itam euh, préfet ba ba fa daal di jël commune bu Bona ngi rek euh, daal di fay ñaax askan wi bés bi itam ñu daal di koy màggal foofe baat ak tontu digganteem ak nga xam ne moom moo di Bakary Konté xaali jàmme reportage. ndagum garab bii dafa am doole loolu fii ci département bu Bounkiling ci journée nationale de l'arbre boo xamante ne département bu Bounkiling daf ko célébrer fii ci diwaanu Bonna maire bu diwaan bi di Ibrahima Papi Diédhiou moom nag daan na saisir occasion pour sensibiliser population yi. dañu foog ne forêt eh, militaire yi dañu ne fii di dugg àll bi ils sont combien mënuñ nekk parce que àll bi dafa bëri ay yoon. ñun ñooy dagg du Gambien ñun ñoo dakk garab di koy jaay Gambien je pense tey dañu war changé changer mentalité xam ne garab bu ñu dagg daf ci retour environnement du baal tey armée boo ko laalee rek day retourné xoolal suñu suñu faro yi yëpp dafa am suuf parce que environnement bu ñu yàq je pense que tey dañu war a euh, comprendre war a changer moo tax doxalin gouvernement yi bees bi dakkoon nañ préfet bu département bu Bounkiling Boubacar Bayinko Sagna moom nag mi ñaax population yi ñi daal di collaborer ak force de l'ordre yi daal di dénoncer képp koo xamante ne gis nañ ko muy dëgg ay garab maanaam trafiquant yi. ak yi si ginnaaw forêt bi mu ñu commencé disparaître moo tax état du Sénégal déployé ay moyens yu bëri mais moyens yooyu tamit dañ si sensibiliser population yi pour ñu jàpp si combat bi population bi na la ñuy jàppee si combat bi mooy ñu collaborer davantage avec les forces de de sécurité bu kenn koo xam ne il dans la coupe illicite de bois ñu boole ko comme ça force de sécurité yi déployé ñu xool ko ko naka lañ ke naka lañ koy jàpp. pour nag changement comportement population bi IEF Bounkiling Cheikhou Sidibé moom nag mu ne dañ war a doore ci l'école yi. parce que xale yi bu leen ko fàtte ñoom ñooy mag yi ëllëg. Euh, bu fekkee na daal am na ay objectifs yi nga xam ne euh, nation sénégalaise bi bëgg na ko. alors loolu ci éducation donc la mën a jaar loolu moo taxoon ministre bi ne nañu profiter ci occasion bi nga xam ne tey moom la ñu jagleel garab pour que ñu waxtaan ak communauté yi. bëri na ci ay manguiers yoo xamante ne jot nañ ko planté autorité administrative bi nag di ñaax population yi ñi daal di def suivi bi. aywa garab gu nekk ak meññanteefam garab gu nekk itam ak la muy def waaye xam ngeen ne garabu mango am na solo am solo goo xamante nii ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngu ca diwaan bu Kolda ci la jamono ñu ngi jànkonteel jafe-jafe yu bari seen ay jafe-jafe itam bëgg nañ ñu daal di koy saafara woon nañu ci euh, gouvernement bu Sénégal Kolda ak la ko wër Abdoulaye Diallo. su production mango bi daa wàññeeku lool ngir ab feebar buy wowloo tortooru garabu mango yi. am na ñaar ñaari façon am na totalement nga xam ne su woowee maanaam si euh, climat bi la maanaam bu tàngee comme daaw ni mu tàngee ni daaw tàngoo ay 40 degré 45 41 42 43 donc loolu day tax euh, total bi day wow te total bi su woowee eh, du mën a am euh, doom donc am na benn aussi benn kii bu maanaam benn feebar boo xam ne day bëri tuutoo day mel ne gàncax day bare boo tamit feebar la. wàllu sax yéex doomu mango bi loolu it seen i jafe-jafe la. pour mango bi baax il faut que ñu protéger ko parce que protéger ko maanaam am na ay xeetu weñ yoo xam ne dañu weñ ñi dañuy songoo mango bi di di di ko bënn di ko yàq donc buñ ko bënn rek c'est fini donc buñ ko teelee bënn rek mango yëpp yàqu na yëpp. looloo tax ñi yëngu ci wàllu mango ñooy yuuxu wàllu ngir jafe-jafe yi ni mel dañ. donc loolu tamit ñun ñun waa mango yi ñun ñuy liggéey ci mango bi ñun ñëpp ñoo war a lëkkaloo euh, xeex ko bennal mais kenn ñu xeex ñëli toog toog jàpp seen loxo ñu ne ñoom suñu yenn koy donc ñun ñëpp tant defuñu loolu loolu tamit euh, li ñuy wax ci weñ bi euh, du du fi gaaw a jóge parce que weñ bi day nekk fii yàq yàq rek dafa nekk donc moo tax mango bi léegi mu xaw a wàññeeku ci kàddu béykat mango yi garabu mango ginnaaw yokkute gi muy amal ci koomi réew mi am na it njëriñ yi ci ñamu nit ñi ngir ferñeent yu bari yu muy indi ci wergu yaram askan wi njaboot yu bari dañuy amee xaalis ngir jaayu mango looloo tax ñuy ñaax mboolem béykat mango way nguur gi ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllu mbéy ndax ñu profité ci bés bi ngir wut ay pexe yi mën a muccal filière bi la bés bu ni mel xam ngeen ni itam màggal nañu ko ca diwaan bu Thiès ak la ko wër waaye itam doon na aw proxndol woo xamante ni jëruñu dénk wàllu njàng mi moom ki nga xam ne moom moo di Moustapha Maba Guirassy daal nay tontu bu baax a baax abbé André Latyr Ndiaye eh, ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ci eh, premier ministre fii ci réew bu Sénégal moom itam eh, kaddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ci jamono ñuy amal concours général atum 2024 ñu teewlu ay kaddu Moustapha Guirassy ci micro Sey parce que danga am voile que waroo am accès ci école boo xam ne jàpp nga ne école bii nga bëgg a dem mu ne donc école boo xam ni day tere di ne kuy porter voile waroo fa dugg kooku jaaduwul wante may wax ni bu ñu seppi wax jooju rek génnee ko parce que tontu premier ministre dafa nekk tontu boo xam ni mooy dafa sukkandiku ci constitution sénégalais yëpp d'accord ci boobu ba léegi ñëpp ñëpp ñëpp d'accord ni constitution bi baax na kon rappeler constitution boobu ni constitution boobu su dee nit ki day sol croix jox ko jëmmam ak gëddëm waroo def différence su dee nit ki day sol euh, euh, euh, voile waroo def différence su dee nit ki sol ay perles waroo def différence mais loolu yaa ci lu baax la amul benn xale du Sénégal parce que lii la gëm parce que jullit la wala chrétien la wala leneen la war nañ ko mën a exclure ci benn école loolu mooy message bi kon ñii di wax dañu doon wax li leen neex wala bëgg yi fu seytaane wala bëgg yëfu politique wante wax ji premier ministre wax moom la war a wax mooy constitution ci ordonnancement juridique moom moo féete kaw. l'abbé André Latyr Ndiaye. li mu wax noonu. dama ko ñaawlu. parce que moom. dafa wax waxu église. loolu wane na ni dégluwul. yàkkamti na wante abe du gaawantu. abbé day dal. abbé da nga war a am spiritualité. abbé da ngay jëf ak wax pour di rafetal moom abbé wax na wax joo xam ni leneen la lu dul euh, euh, c'est différent de premier ministre mu waxoon lii premier ministre wax daf ko war a dëggal mooy xale chrétien bi dañ ko war a protéger xale jullit bi dañ ko war a protéger xale jullit boo xam ne du porter voile dañ ko war a protéger moom la waroon wax wante wax ji dafa dëgër trop et puis dafa démesuré par rapport en fait au débat boo xam ne am nañ ko aywa ñu fàttali leen li Ousmane Sonko waxoon mu di nag duñu nangooti benn yoon képp ku indi ay gàllankoor eh, ci xale yi nga xam ne nag dañuy muuru jëm ci li nga xam ne nag moom moo di eh, l'école wi aywa ñu addu ba tey ci leneen mu soxal génn ko àddina ki nga xam ne nag moom moo di eh, Matar Dabo syndicaliste borkoon itam ci ñoon ñu Pastef moom itam mu ngi génn àddina ginnaaw itam bi ko ak cong daanalee mu soxal aw malaise gis ngeen ko noonu bëri na woon ci suñu nii ni nag mi ngi ci doon ànd ak ñun doon waxtaanee li nga xam ne euh, moom moo di euh, tolluwaayu jamono ci samay kàddu télévision Futur Média mi ngi koy jaal askan wu Sénégal njabootam ak itam euh, fa nga xam ne nag fa la bootu woon mu di Pastef aywa mbokk yi ñu wéyal xibaar yi àddu ci leneen ci loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju ca Bambey jàppale ne nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllug cet gi yenn ci ay ndawal yoo xamante ni baaxul askan wi jëfandikoo ko loolee la ñu nangu ci ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi ko doon jéem a rawale uh, ci uh, marché wi ñu yor wàllug cet gi tam uh, daal nañ ci àddu bu baax a baax tax na suñu ay ndaw yafa daal nañuy tataan seen i ay kàddu ñu teelu kon ci oto minicar ñëw ba Bambey bëgg fee jaay yàpp wi nga xam ne baaxul. ci lekk service d'hygiène moo leen gis teg leen loxo ci njàppale police bu Bambey. ñoom ñoo ànd def ci ay recherche gis ne aussi yàpp bu ñu war ta lekk la bu ñu war ta jaay la waruñ koo lekk waruñ koo jaay donc nan la ñu def kon donc ba muy accéder biir Sénégal bay jógee dakaar bay traversé bay yegg si Bambey bañ ko fiy téye donc loolu ñun surtout ñun force de défense et de sécurité yi nga xam ne ñun ñoo yor contrôle frontière yi nañ amaat vigilance amaat dignité boo xam ne dañ ko war a def. par rapport à nous par rapport à notre famille. ginnaaw bi ñu tegee loxo ndawal lu bon lii ñu bëggoon a jaay ci marché bi lieutenant Amdiatou Sarr chef service di jeune bu Bambey ak i nitam danoo lakk ndawal li li ñu bëggoon fexe ba ndawal lii kenn du ko dugal ci gémmiñam ndaxte feebar rek lay indi. mu mën a andi yaatu na lu mel ne ah, ah, feebaru yi ñu naan ay AVC tension parce que excès de lipide lay doon surtout. dangay gis kiwis boo xam ne danga nga koy yëkkati defee ne poocu nag la ngay yëkkati wala poocu xar ngay yëkkati ca mu nekk ginaar loolu donc war ngaa xool la ca ginnaawam lan la donc yeneen yi aussi mooy hépatite hépatite aussi nekk loo xam ne ay feebar bu dooy waar la jamono gi may wax ak yow nii Sénégal nekk di d'ici quatre ans cinq ans bu dee nii la lancé bi nar a continuer day doon problème boo xam ne ab pandémie la fiy doon wala ab épidémie la fiy doon. ci jamono ji ñuy waaj màggalu Touba. service d'hygiène bu diwaanu Njaareem yépp a mobilisé fu mu ne nii. bii bëtam di xool façon lekk gi ñu bañ koo dugal ci diwaan bi ndax mën naa indi ay jafe-jafe ci wër gu yaramu askan wi. aywa ñu àddu ci lu soxal wàllu euh, tàggat yaram mu mel ni itam jeu ca Paris atum 2024 Cheikh juf Diouf euh, daal nay euh, jeexalee lu toll ci juróom juróomeela bi ci li nga xam ne nag moom moo di série yu 400 mètres ci la jamono itam xel dem ci wàllu repêchage ngir rek ñu am ak yaakaar ci li nga xam ne nag moom moo di qualification jëm ci li nga xam ne moom moo di demi final wi mardi wi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal gis ngeen ko noonu ci li nga xam ne moom moo di suñu ay image ñu àddu ba tey ci li nga xam ne moom moo di yooyu les JO euh, Louis François Mendy moom itam euh, daal di rek nekk ca kanam jëm ci li nga xam ne nag moom moo di euh, sériwam ci la jamono itam ñuy waxtaanee li ñeel wàllu qualification jëm ci li nga xam ne nag moom moo di demi-finale yi ci cent dix mètres et yu JO yu Paris atum deux mille vingt quatre moom mi lee nga xam ne mi ngi am ci lu toll ci ñaar fukki at ak juróom daal nay jeexal lu ni mel ci li nga xam ne moom moo di chrono bu treize 16 31 euh, ñu des ba tey ci li nga xam ne moom moo di yi mbokk yi waxtaanee ak beneen ab athlète fii ci bu Sénégal di Combé Seck moom moomee nag mi ngi am ci lu toll euh, ci ñaar fukki at ak euh, juróom-ñeent vice championne euh, d'Afrique ci li nga xam ne nag moom moo di canoë kayak nekk bokk ci li nga xam ne moom moo di club bu Wakaam ci la jamono itam mbégteem ak itam li nga xam ne moom mooy tax mu jëm ca kanam ñenn ci ñoo xamante ni itam ñu ngi koy gën a tatagal mu ñeel comité national olympique ak itam sportif sénégalais ñoom nag ñu ngi koy gën a ñaax ñu teewlu seen i ay kàddu. si si dëkk bi euh, le fait que mu dem rek di participer si jeux yi dina tax sax ñu gën a xam ngor. aleykum be ñun ñëpp ñoo ngi sa ginnaaw. été euh, porte-drapeau de devoir être porte-drapeau lu am solo la lu diis la mais l'essentiel mooy nga. def li nga war a def je sais def li nga war a def incha allah allez Combé sa kaw sa kanam ndaam Combé ndaam comme ñun waa Ngor magi di la ñaanal yàlla may la ba nga jëm ci computer bi ba yàlla may la ndam ñëpp di la ñaanal yal na yàlla may ndam félicitations tu as tous nos encouragements. Tout bord est derrière toi. La coutume, les religieux, l'administration, tout le monde, les jeunes, les vieux, les hommes et dames, tout le monde est derrière toi. waa Ngor gépp bu ma bu ma limee rek damay jub yéen ñëpp leen di gërëm kontaan naa trop dinaa ko def incha allah. incha allah incha Sénégal gépp ngi sa eh, ginnaaw mbokk yi ñu des ba tey ci lu soxal wàllu tàggat yaram jàppale ne eh, ñenn ci ay nominé jëm ci distinction individuelle mu ñeel saison atum 2023 2024 jëm ci li nga xam ne eh, moom moo di basketball jàppale ne nag lu soxal wàllu titre bu roi Mohamed bu AS Ville bu Ndar ndakaaru Fally euh, Kanouté euh, bu Dakar Université Club ak itam Serigne Saliou euh, Gueye ñoom ñooñu itam ñu ngi ci jongante bi Maguette Sène bu AS Ville de Dakar Elisabeth Dabou ak itam ki nga xam ne moom moo di Juma Bert xam ngeen ne ñoom ñoo bokk club bu Dakar Université Club ñoom itam ñu ngi xëccoo li nga xam ne nag moom moo di reen wi waaye jàpp leen ne ñenn ci ñoo xamante ni itam daal nañu leen di tab daañ ko xam ci ay bés wi nga xam ne moom la ñu dëkkmal aywa mbokk yi ñu jaare fi daal di yëkkati jotaay wi dig daje léegi léegi ak rédaction bu télévision Futur Média Sara Cissé dina fi teew jukki leen xibaar yi ci français man itam ma jox leen daje ni ki ëllëg incha allah si seen émission info matin à partir de 6h30 fi teew jukki leen li gën a fës eh, ci li yéen kaay yi di fësal lu mooy loolee de seen di wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm.